li tax nag euh, ngeen ñëw fi tey te mooy euh, taxawaay bii nga xam ne yeesalaat nañ ko ci fan yii ñu nekk te mooy yokk cat gi ak kaaraanga gi ci barab bi nga xam ni mooy jumaa ji ak pénc mi ndigal la lu bàyyi ko ci Cheikh Mouhamadul Mountakha mu wax ne nañu yeesalaat taxawaay yi euh, defaraat barab bi ba mu gën a méngoo ak li nga xam ne noonu la ko sëriñ bi santaane woon te loolu lépp ndigal loolu lépp tey jii nekk ci loxoom mu digalaat ñu taxawaay boobu ñu gën koo yaatal ndax fi jamono toll ak ni penc mi mel te muy loo xam ne teg na ci bëtam moom mu bëgg na ñu yokk taxawaay boobu ndax dafa mel ne e, am na yoo xam ne mu ngi romandaat di ñëwaat ndànk-ndànk te suñ ko teelu te gatandu mën naa doxaat ba delluwaat fa mu nekkoon soññee boobu nag moo indi opération bii nga xam ne amal nañ ko ci jamono yi ñu toll loolu nag am na lu mu jur li mu jur mooy am na lu mat téeméeri nit ak juróom-ñeen fukk ak juróom-benn yoo xam ne téye nañu leen fii ci fii bokkul nag waxuma rek ñi nga xam ne amante nañu ak ñoom maanaam woo leen ñu ñëw ci biir jumaa ji ñu wax ak ñoom lool moom lim bu baree bare bare la waaye ñi nga xam ne téye nañ leen ngir ay yëf lool toll na ci téeméeri nit ak juróom-ñeent fukk ak juróom-benn cent quatre-vingt-seize personnes yoo xam ne dafa séddalikoo ci yii may bëgg lim am na ci ñoo xam ne dañoo am jafe-jafey kër ba génn seen kër dem di wërelu ba yàlla dogal ñu for leen am na fi ñoo ne dañoo am ay jafe-jafe seen diggante ak seen wayjur ak ñàkk juboo am seen diggante ba ñu génn def li ñuy tuddee fàq ñooñu itam am na ci am na ci ñoo xam ne xëy na du seen jur lañ amal jafe-jafe waaye seeni waajur ci seen diggante ñoo am jafe-jafe ba ñoom mënatuñu koo dékku ñu génn seeni kër dem am na fi ay dongo yu daara yoo xam ne dañoo dawee ci seeni daara am na itam ñu jóge ci ñu dawee ci yeneeni dëkk yeneeni réew ñëw ci biir dëkk bi te xamuñu fi kenn ñu for leen fi am na fi ñoo xam ne dañoo ñëw di def lu nuru ak njabaraan walla ñuy tuddoo ñu ñu doonul di wane ne doomi diw lañu wala sëtub diw lañu te loola wérul am na fi ñoo xam ne dañ doon tuxal alali jàmbur maanaam dañ doon sàcc am na ci ñoo xam ne itam dañu doon màndi walla ñuy jëfandikoo luy màndal wala ñu yor ko am na ñoo xam ne itam dañ doon taxawaalu rek mel na ñu dëkkul fenn am na it ñoo xam ne euh, yu mel noonu jaxasoo googu ñu doon wax ci penc bi dañ ko fee indi woon muy indi fi embouteillage bu xaw a bari ñooñu bokk na ca def gi ñu ko defoon lu mel ne ab garage oto yi taxaw di woote euh, coxeur yi ak chauffeur yi jaxasoo fi bay egsi sax di woote ci kaw ci bunti jumaa ji am na ci itam ñoo xam ne ay góor ak jigéen lañ ak way laa ko yoo xam ne dañ daan nekk ci penc mi di kar nit ñi am na ci ñoo xam ne dañuy siyaare ba génn ngir ñu duggaat seen oto sax jafe-jafe lay doon wala ñu egsi waaye ngir ñu wàcc seen oto dugg ci biir jumaa ji sax jafe-jafe lay doon ndax dañ leen di kar di leen sonal coono bu metti te loolu am na lu ñu ci sëriñ fu Mbàkke waxoon bi nga xamante ne bi njëkkoon na koo ci jumaa ji te ñi fi nekkoon ñu ci bari daw dem biir këram wala ci buntu këram bii jàkkaarloo ko sëñ Daam fii la ñu toog waxtu trois heures ci bëccëg ci weeru koor mu yónnee ay ndaw woolu ñu daw fekk ko mu toog ci buntu néeg sëñ Modou Badar bi tey sëriñ Moussa Niang yàlla na ko fi yàlla gën a yàggal fekkee na ko sëriñ Change bu Cissé moom itam fekkee na ko ak ñeneen mu wax ñu boppam ci làmmiñu boppam ne yëg naa ne penc ma la ma ci doon tere taxawal ngeen ma ci ba mu dañ waaye ñi nga xam ne ñoo yore ñoo faral ñu yalwaan ak di sonal nit ñi dañu faa jóge tàbbi ci sama biir kër gi ba am na fi ñoo xam ne danañu ñëw ci biir kër gi ñu teral leen ba seen xol sedd waaye bu génnee ci bunt bi danañ leen fi def loo xam ne dootuñ fi bëggatee delsi kàddu googu ci làmmiñam lañ ko dégg ñun ñi demoon te jataay ba ñu ci bari ñu ngi fii waaye sëriñ Moussa Niang fekke woon na ko sëriñ Souhaïbou Cissé fekke woon na ko ak ñeneen ñu bari lu mel noonu nag moo doxoon ba delsiwaat ci penc bi am na ci ñoo xam ne njaay mi ñu doon tere ci penc bi dañoo commencé waatoon di duggaat ci biir penc bi kon fukki yëf ak ñett yooyu mooy ñi nga xam ne euh, euh, ak yooyu yi nga xam ne euh, jàpp dañ leen ci penc bi ci biir ñooñu nag am na ci ñoo xam ne dañoo waxtaan ak ñoom xamal leen lii bëggu sëriñ bi ak yi nga xam ne moom lay tere ci penc bi niñ ko war a moytoo bàyyi leen ñu dem waxtaan ak ñoom ci njëkk ak teranga am na ci ñoo xam ne nag ñoom la ñu def mënula ñàkk àgg ci yoon dañ leen jëppal yoon ñu saytu seen mbir am na ci ñoo xam ne itam ci biir ñi jàpp ñu def ay tojaanga yu rëy la ñuy doon yoo xam ne lu ci jar laaj lu ngeen ci laaj itam ci lu ma des mën a leeral des na ko leeral waaye bokk na ci itam ci taxawaayu daayira Muxaddamatul ma saytu armeel yi ñu njëkk yi di morgo yi nga xam ne moo nekk ci penc mi armée li Baqiyan foofu itam danañ ñu tënk tuuti rek lu loo xam ne tàmbali lay doon mooy dañuy sart ci képp koo xam ne dafay ñëw buy ñëw mu ënda fekkente ne dafa faatoo ci hôpital mu ëndaale certificat de décet buy wane ne dafa feebaroon faatoo ci hôpital wala bokk dafa accidenté woon faatu certificat de genre di mort dana koy ëndaale boo xam ne dana wane lan la faatoo su fekkee dafa faatoo ci kër dañuy dem ca chef de quartier ba mu bindal ko aw kayit xam le ne fii la dëkkoon dara dalu ko woon wala daa feebaroon tëdd ci néegam faatu ba ñu xam ne amul dara loo xam ne moo ko rey ci ab tënk daal lii laa mënoon a ubbee euh, bu dee ci ñi nga xam ne ñoo yore doxinu yoon ci dëkk bi baaxoo nañu ndigal yu mel nii saa bu ñu ko amee dañuy dem toog ak ñoom gaaral leen li nga xam ne moom la bëgg moom lañu ñu sëriñ bi sant ñu war koo def su ko defee ñoom seeni ndaw dañuy ñëw toog ci barab bi ànd ak ñun ci liggéey bi lool noonu la ñu def xam nga ni fii zone police la police euh, mën nañoo wax ne am na ñoo ñoom collaboration bu rafet ci wàllu liggéey bi ba tax na ñi fi jàpp sax ñëpp police boobu lañ ko jébbal amuñu ak ñoom ci benn jafe-jafe ci wàllu liggéey ndax ni nga xam ne noonu la ñuy doxalee ak ñi jàpp benn jafe-jafe da amuti amul it benn violence euh, bu dee wàllu safinatul amaan itam rapport bu rafet lañu am suñu diggante ak ñoom muy lu euh, seq liñ seq lu rafet rek la ànd itam liggéey bi ñu dañuy jàppale ñu di leen jàppale liggéey bi nga xam ne moom ñoom la liggéey loo itam comme ni nga ko waxee dañ leen di tàggat ndax képp koo xam ne dafay liggéey ci aw nit xam nga jumaa ji ajjuma ne lu néew néew néew lu ëpp ñaar fukki junni nit danañ fi ñëw ñaar fukki junni nit nag kuy jëflante ak ñoom par semaine buñ doo mën a liggéey ak ñoom te euh, ajjuma yi ñuy yi ñuy liggéey ak kori yeeg yi moo gën a xat wu dul màgg ak màggali Tuubaa ak màggal yi nga xam ne ñooy am ci biir dëkk yooyu yaakaar naa moo gën a xat penc mi du fi dara xewul xewul nag su opération yu mel ni amee dañ leen di dajalewaat gën leen a tàggataat ci doxi bi nga xam ne moom la ñuy dox ak ñi nga xam ne ñoom def ñuy jëflanteel